Mbour 4 il faut partir des lotissements de 2006. Mmh. il mais bi ñu ko defee ba pare c'était 1648 bi ñu ko defee ba pare Eaux et Forêts dañoo ñëw ne yéen amu droit toog fii. le temps que gars yi di régler problème bi am ñu jaar ci suuf jaay ko parcelles yooyu. waaw soixante quatre-vingts pour cent de ces parcelles là ñu jaay ko ñeneen ba ñooñu commencé. mooy doon démolition yi après exactement. Mm-hmm. léegi. président bi mu ñëwee en 2017 pour l'inauguration du KM de KMS ces gens sont venus se manifester pour dire que ne ñun dañ fi war a am. président laaj gouverneur si bi fa nekkoon lan la mu ne mu explique problème bi ñu ne léegi kon nañ leen jël def procédure bi nga xam ne dañuy déclasser cette forêt là. moi je ne suis jamais d'accord pour que ñu déclasser ay forêts parce que aujourd'hui Thiès est une ville qui étouffe. Mmh. avec aujourd'hui le co qui qui qui qui est dégagé yow boo dugg see Thiès tey jii embouteillage yi fa am. tey jii waroon nañu mën a jël forêt classée tey jii def benn forêt bi nga xam ne comme ni ñuy defee à l'image de Thiès est la seule ville de du Sénégal où il y a une rue sans soleil. Mm-hmm, parce que c'est ça la c'est ça la mm-hmm. vérité. il faudrait que ñuy identité la ci mm-hmm. Thiès. donc aujourd'hui il faut qu'on reparte. de ces initiatives là de pour refaire Thiès. Thiès bu tawee tey jii dans deux mois. mais chambre de commerce côté boobu yëpp dafay taa y a des yi nga xam ne tey ji boo demee Mouride ga Daaru Salaam et mënu faa dugg mhm. donc tey ji on devait en profiter pour jéem a seet nu ñuy aménager des zone pour étendre Thiès à ce niveau là au niveau de Mbourkat mhm. ma dellu siwaat ci ci ci loolu noonu yaa a 600 enseignants yi nga xam dañ leen joxoon ci ZAC ba au niveau de ZAC euh, ZAC bi nekk waa ngent bi ñooñu dañ leen joxoon papier fekk ne suuf amu fa mhm. ñooñu ñu profité boole leen ci donc bi loolu amee c'est un peu le cas aussi de Pape Diop qui dit que dañoo loolu la wax voilà c'est ce mhm. trouve pas normal. que un Thiessois wala quel que soit le citoyen ñu yëkkati cinq hectares dix hectares di la jox yow kese. loolu ce n'est pas normal du tout, pas du tout normal, ouais. maintenant le fait qu'on donne à certains maires xam nga ñoom sumay rakk la ñu quoi Babacar Diop suma rakk la mhm. Ousmane Diagne suma rakk la donc ñoom ñëpp sumay rakk lañu donc bu ma amee conseil bu ma leen jox mooy bu ñuy kaas parce que bi ñuy kaas ñoom pour wuti ji suuf soosu. Mhm. dañoo wax population yi ne ñun joxuñ ñu. bi ñu amee aussi dañoo waroon ñëw population yi ne jox nañ ñu léegi on ouvre ça. mais justement est-ce que